forage dal leen jàmm ci xibaar yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo coowal yi nga xam ne nag Serigne moom la doon amal moom Barthélémy Dias yëkkati kàddu daal di jëmale yi nga xam ne nag moo di njiitu réew mi ak di xam ne ne Aliou Sall kay jamono ji ñoo koy daanaka li nga xam ne daal noonu la def ci réew mu ne moom Barthélémy Dias kay démb daanaka tekki ndombal tànkam ci AMS waaw nee association des maires du Sénégal nee du nekk bokk ci kuréel goo xam ne maanaam daal kuréel goo xam ko jiite ab sàcc la moom Barth nee du ko def loolu tax mu tekki ndombal tànk direct info nag jaaxal moo di coowal pétrole lii nga xam ne daal moo di Malick jamono ji nag bëri na ay réew yoo xam ne pétrole bu feeñee

nga xam ne dañ ciy tudd rakam muy Alioune Sall ñu daan ci andi ay leeral l'observateur du ñu xamal ne yeneen ni mbir mu leer ki nga xam di ñu xamal lu toll ci ñaar fukki million ak juróom-benn la fa lu ka nga xam ne nag moo def loolee dana fees dem jamono jii nag bi di ñu xamal am mandat d'arrêt international la ñu ci nonda maanaam daal fépp fu ñu ko fekk dinañu ko jàpp hmm, man daal foofu laa ci yam Ousseynou Ndiaye